mbokk internet yi ñu ngi leen di nuyu naan leen asalaamaaleykum di siyaar ñëpp mboolem ñi ñuy seetaan ci suñu plateforme yi Facebook YouTube Twitter Instagram ak seen site officiel senego point com ñu ngi dalal tey euh, benn gan Amadou Niang euh, coordonnateur COJER Dakar muy euh, nekk fii ci biir Ndakaaru tamit Biscuiterie yi di fa milité Amadou ñu ngi lay nuyu bàyyi la nga nuyoo mbokk internet yi. maa ngi lay nuyu bu baax a baax di la sant. Hmm. di nuyu waa Sénégal yëpp ak ñi ñuy seetaan à travers le voilà ñu dalal la jàmm di la masaw tamit ci euh, taw bi waaye tamit euh, dañuy def euh, jaale ñëpp rek suñu kilifa yi nga xamante ni ñoo fi jóge rawatina mbooleem ñi nga xamante rek ñoo am ay mbokk yu génn àdduna ci feebar wala ci accident yi yàlla na borom bi defar lépp alors amatu li ñuy njëkk a waxtaanee rek mooy ci li nga xam ne moom mooy luy ay di jàmbat. Mm-hmm. parce que moom la ñu doon jàmbat daaw ci benn fan ñaari fan rek mu jur coow lu bëri. Mm-hmm. muy inondation maanaam mbënd mi. ren tawatina ci mois d'août ci benn fan ñaari fan rek euh, mbënd bi commencé te mais fi mu commencé waat fi mu gën a fësee mooy fi nga xam ne fa ngeen euh, taxoon ba seen président euh, wala bokk seen njiit président Macky Sall génnoon déclenché lii di plan décennal ay milliards mu dugal ko ci xeex mbënd bi rawatina foofu ca Kër masaar waaye dañoo gis ne dafa tawaat démb ak bërki démb rek mbënd bi commencé waat loolu du échec ci ki nga xamante ni moo ko sabab di président la république wala boog ci ñay yore yile travaux. bon man du ma ko tuddee échec. comme ni nga ko waxee. parce que man dama am euh, année de base. mooy inondation yi bi mu lëmbee réew mi. ay vers 2006 ba 2012. xam nañ ne inondation yi avait scandalisé avait traumatisé une bonne partie de la population au niveau de la banlieue. ak un peu partout dans les régions au Sénégal. ci lañu mettre en place un plan décennal de lutte contre les inondations c'était un plan euh, euh, de la tuddoon. ñu injecté si injecté si 777 euh, milliards. Mm-hmm. daaw bi ñu koy évaluer mm-hmm. nee nañu agsi nañu ci 38 pour cent de réalisation de ces travaux mun mm-hmm. mënuma ko tuddee échec parce que eggagul à son terme. pareegul quoi pareegul non seulement benn mm. mais deuxièmement aussi il y a un temps d'évaluation mm. les députés de l'Assemblée nationale ont auditionné sept ministres de la République mm. ont auditionné cinq directeurs généraux il y a un rapport qui a été mis en place pour mu ñu xam xayma lan moo ci mën a xew moo tax mënu ma ko tuddee loolu te li may wax mooy xam nga dafa daan taw te Dakar nga gis par exemple zone bu mel ni Ouest Foire zone bu mel ni wax Wakhinane Nimzatt zone bu mel ni ay Gounass zone bu mel ni par exemple euh, comme fi ngay wax Parcelles Assainies wala Dalifort. mais ñëpp nangu nañu ne. Hmm. na mu daan mel melatu ko. Hmm. ay la yëwën. Hmm. donc plan décennal bi am na lu mu jur. xam nga tey bu ñu tollee ñu ne par exemple parce que attention li noon les inondations yemul rek Dakar parce que ñii dañuy focaliser sur Dakar. mais n'oubliez pas qu'à Kaffrine amoon na fi inondation bu métti boo xam ne ni tey un budget de 1 milliard 500 cent des réalisations échec amu ci. parce que tout simplement ñëpp xam nañ ne na inondation daan mel melatu ko. Mm-hmm. et la question des inondations dafa am lu am solo lu muy indi. Mm-hmm. mooy l'aménagement du territoire. parce que aussi loo gis am na ay études am na nu ñu koy defee mais boo gisee tey ñuy wax waxu inondation ba yegg si fi tey mais c'est parce que nit ñi am na ay dëkkuwaay yoo xam ne foofu nit du fa dëkk. Mm-hmm. ay yoon. ay foo xam ne amul ay canaux d'évacuation ainsi de suite. mais foofu kenn du fa dëkk te te te te yéen dagg terrain yooyu joxe ko. nit ñi dëkk attention déggoo ma ne la déggoo ma ne la inondation bi ñuy ñëw en 2012 fi lañ ko fekk. waaw ñëpp xam nañu président de la république bi mu ñëwee. toog hmm. en avril hmm. ñetti weer lañ ci teg wala ñeenti weer. Hmm. mu dem Afrique du Sud ñëw. daal di annuler élection sénatoriale supprimer ko. pour dem ci affaire inondation. pour wane la ne loolu fi lañ ko fekk. mais nañ nangu ne. 2012 ba 2021. wax dëgg yàlla am na ay année avancée significative yoo xam ne ni am na ci wàllu gestion des inondations voilà euh, merci Amadou loolu lañ doon wax foofu rek nga xamante ni moom lañ doon ubbee euh, suñu ñëwee tamit ci leneen muy actualité actualité wu deux ans ñu ngi dem ci troisième année bi ñu ngi wax ay quatrième vague ak cinquième vague ak beneen virus ak lu ne ñu ñu koy wax fi mu nekk nii ñu ngi ci delta xam naa bu ñu jógee ci delta moom ci Boeing lañ jëm léegi Covid <laughs> Euh, rassemblement maanaam dajaloo yu bëri loolu yëpp ci euh, geste barrière yi la bokk mais rassemblement yooyu ñu tere dafa am benn boo xamante ni euh, moo leen moo leen jaaxal yéen te dafa mel ni ki daal luy laqe doo leen ci teg seen loxo ñu ngi ci jëm di màggalu Touba. dafa mel ni kii lii di événement religieux yi bëggu leen ci teg loxo wala bëggu leen ci yàbbi wala boog est-ce que amul benn waxtaan boo xamante ni mën ngeen ko sekk wala nguur gi mën na ko sekk ak këru diine yi. waaw mais nag il faut pas faire de la religion un moyen de toucher à la sensibilité des uns et des autres. Mm-hmm. mbirum diine comme tu l'as dit. Mm-hmm. dafa sensible. waaw mais dama gëm ne. Mm-hmm. coronavirus bi li ma ci doon wax ci début ba. moom lay waxaat tey. c'est une question de responsabilité individuelle. mais xoolal l'église catholique. bi coronavirus bi ne cëpp yegg si réew mi. ay Pâques ay JMJ ay Pentecôte ay Noël. ils ont pris sur eux l'initiative de surseoir à ces activités là. Mhm. te pourtant ñoom loolu la ñu gëm loolu la seen fête. Mhm. toog nañ fi benn tabaski wala benn korité boo xam ne nii. Mhm. jàkk yi julliwuñu. question de responsabilité individuelle la dafa am loo xam ne état mun na ko am na loo xam ne état munu ko. parce que ku ci nekk yaa xam feebar bi fan la toll. ak ban matuwaay nga ci jël. moo xam murit nga moo xam laayeen nga moo xam tijaan nga ak loo mënti doon. coronavirus bii. pour ñu xeex ko question de responsabilité individuelle la amul ay tarixa amul ay kuréel amul ay lamb amul ay nangam parce que li fi xew. Mm-hmm. problème ñëpp la. Mm-hmm. bu ko ñi ku nekk defee sa soxla bopp. Mm-hmm. ma gëm ne mu faju mais ñun aussi am na benn manque de responsabilité. manque d' boo xam ne dafa des ci tous les sénégalais muy man muy sama morom muy keneen ak keneen. ci wàllu woowu. parce que tey li ñuy tere rassemblement. mais dama jàpp ne feebar bi. li koy indi. li koy li koy li koy moytuloo nit ñi. ce sont les gestes barrières. li koy moytuloo nit ñi. ce sont les vaccins qu'on est en train de prendre. mais da nga vaccin pour man loolu jaaduwul. dafa am ay jafe-jafe yoo xam ne bu ñu ko tollee ci réew dañu war a liggéeyu comme un seul homme pour mun ko xeex mu jóge fii mais il s'agit pas de religion il s'agit pas de sport il s'agit pas de culture ou quelque chose de genre boo xam ne ni tey euh, war nañ ko mën a jël di ko fooyee par rapport ak la gestion ci loolu sax ci Covid bi dafa mel ni ki tamit am na coow lu jib euh, ci biir euh, APR wala bokk ci politique bi bu ñu waxee en général quoi parce que tey ñu bëri ñu ngi fustigé wala bokk di ñaawlu gestion wu la de la santé muy Abdoulaye Diouf Sarr loolu est-ce que loolu lu war la moment bi nii ñu koy critiquer gestion bi baaxul ak nangam nangam ci yéen la wala. wala dafa am ñu bëgg palaasam. xam nga xam nga wax nga ko. Hmm. xam nga Abdoulaye Diouf Sarr. Hmm. man dama gëm ne c'est a excellent manager. Hmm. ci fi mu jaar yëpp. tey ñu ngi wax waxu coronavirus. mais ñëpp xam nañu ne. le CNGE. li muy proposé président de la république mu koy validé. Abdoulaye Diouf saar ministre de la santé moo koy exécuté. encore une fois feebar bi fi mu toll. tolluñu ci ay attaque personnelle Massamba Mademba yooyu ngay wax noonu ay waxi politique la ay nit peut-être mën nañu sukkandiku ci coronavirus bi tey pour mën ko attaquer pour mën a jël place am au niveau du ministère de la santé ou bien même pour anticiper la décision du président par rapport à la au choix dans Dakar tout ça c'est des choses yoo xam ne yu am la mais dama gëm ne coronavirus tant que mi ngi fi ay jafe-jafe day am ci wàllu kii ko bëgg remplacer si nangam wala sangam. Hmm. dama gëm ne il faut le laisser travailler. Hmm. nit da koy bàyyi mu ànd ak sagom mu liggéey surtout loo xam ne c'est des questions c'est des questions national. Hmm. feebar bi du ay caaxaan. Ah, ba mu jëlee premier de ñëpp ko doon félicité. ba Sénégal jëlee premier non non du ñëpp ci début coronavirus. xam nga man xam nga man xam nga daf xam nga man daf naa contribution ma tontu Bougane Gueye Dany. Bougane n'a jamais dit que. jël na premier wala jël na bi muy def sa contribution keroog bërki dem di wax di interroger daf ko ne premier ak deuxième ngeen jël lu ngeen def ba yegg tey ci ndaare bi ci Afrique. Mm-hmm. Mm-hmm. mais mën na ko yow musuloo toog sa benn média boo mus a am. mu mm-hmm. mus a wax ci affaire premier wala deuxième. il faut être cohérent avec soi-même quoi mais mais Bougane euh, des fois doon na rafetlu liggéeyu médecin yi docteurs gëm daal de façon globale de façon générale mooy. bu ñu nekkee ci feebar bu mel ni coronavirus boo xam ne dafa lëmbe réew mi. c'est pas le moment de dangay ngay xaar ba politique jot nga def waxu politique nga xeex ngay xeex ci wàllu politique. Mhm. mais il faut pas ñu nekk ci lu am solo lu mel ni mbas mi. Mhm. ñu jël une personne di ko attaquer. Mhm. pour simplement anticiper sur des décisions bien combattre pour des pour des li ñuy jeexee mooy jeexalee benn combat politique bi nga xam ñu ngi koy dëgmal muy les locales. Euh, janvier deux mille vingt deux incha allahu rabbi euh, première question bi ma la ci njëkk laaj après ñu jeexal benn bi mooy dana amam du am yow en tant que membre COJER. COJER nekk bànkaasub APR dana amam du am loolu laa bëgg nga tontu waaw wala déet. lan moo tax du war lan moo tax du am. dama lay laaj parce que coow li bëri na parce que ñu ngi naan coronavirus bi ci la président di profito aj lii di local yi. Mhm. ah coow politique bi lii euh, fichier électoral ak yu kenn xamul certificat résidence ak yu kenn xamul euh, génn ngeen fi coow boo xamante ni du fay. Ah, ba fii ak 2022 dama lay wax dara dama laaj ndax day amam du am. on est dans les dispositions pour mu am le 22 janvier 2022. on est dans les dispositions. oui. Ouais. révision sur les listes électorales mm-hmm. nit ñi ñu ngi dem di inscrire. Mm-hmm. le processus a démarré. muy mm-hmm. jëm vers les élections locales. maa doo leen ko gàllankoor. gàllankoor lu koy wut lu koy freiné. waaw mais bu amee lu koy freiné tamit mu freiné rek. après ngeen xam nga élection yi bëggoon na fi am. après ngeen jóg xam nga élection yi bëggoon xam nga élection yi bëggoon na fi am. lan. audit du fichier électoral. waaw ñu audité ko avec des experts internationaux. Mhm, mhm. ñu ne audit bi fi euh, fichier bi fiable na à plus de quatre-vingt-dix-huit pour cent. Mhm. où est le problème. tu penses que ne bu fekkonte ne loolu amul woon EJ bi defuñu ay élection locale. mais audition bi ñaata euh, jour la fichier électoral bi. 45 jours 45 jours. Mm-hmm. mais si 45 jours non la mais ci diggante boobu ñu ngi wax li nga xam ne moom mooy délivrance wala bokk ñu waxtaan na ban anam la ñuy joxe nit ñi ñu am euh, carte euh, électeur benn bi mooy ci certificat de résidence yi nga xamante nii mi ngi jur coow actuellement nee nañu euh, yenn maire yi bokk ci APR maire yi yi bokk ci APR nekk ci maire yi dañuy jéem a beral loxo seeni militants jox leen ay certificat de résidence ku bokk Pastef wala PDS wala feneen ak feneen boo ñëwee moom doo am ñaari exemple laa lay jox ci li nga xamante ni mooy li ma la wax foofu ca Linguère Saamu Njoobeen ka daa créé benn cellule am ci biir këram di joxe ay certificat de résidence pour ay militants am beneen bi mooy ca Euh, Mamadou euh, Mouri le maire créé cellule am ci biir këram di joxe ay certificat résidence mooy information yi ñu am. loolu yéen fan ngeen ko teg. xam nga bu amee loolu lu tax. xam nga une information doit être vérifiée et confirmée. waaw. on parle de certificat de résidence. waaw mais ku nekk. Hmm. am nga sañ-sañu fa nga dëkk nga fay voté. loolu am na. ku ne. su fekkente ne tu remplis les critères. document administratif boo bëgg ak foo ko bëgg. war nañ la ko mën a jox. mais ñi ne seen i maire nag dañu créer seen i cellule. seen seen biir kër xam nga xam nga loolu très sincèrement man très sincèrement wóoruma. parce que tamit dëkk bi waaw mais attends xam nga dëkk bi. Mm. nekk na dëkk bu sérieux boo xam ne quand même. autorité gëw ma ne. mën nga sa biir kër. Mm.

mais parce que ci ay transfert d'électeurs lañu yaakaaroon ba gagné seen ay mairie su fekkente ne tey système boobu dafa dem ba ñeneen di ko naan di def comme ñoom. ñu crier au secours. wala ñu crier ah, ah, nekk doon ay. ñeneen ngay def ñan la yéen. non dama ne. waaw ah, bu ko ñeneen di. mooy li ma wax dem bay def noonu. xam nga loolu kenn hmm. newul daganul. waaw kenn newul baaxul. Hmm. transfert d'électeurs ku mu neex nga def ko. Hmm. ku mu neex nga ne man fii laay voté mais benn xarit je fan point amitié la dëkk. Mm. fa la ndeyam ak baayam am kër. Mm. depuis sept ans il loge à Ouest Foire. Mm. mais kooku bu ko neexee mu jël ay kayitam ñoo ne léegi Ouest Foire laay voté mairie Yoff. bu ko neexee mu desaat si euh, sa sa sa sa sa sa maison familiale mu mu voté mu voté dans sa commune euh, dans sa commune natale. donc du problème. tant que tu remplis les conditions pour mën a transférer sa vote. c'est légal. maintenant dama ne. transfert d'électeurs ni nga ko daan déggee parce que dafa am ay acteurs politiques yoo xam ne ou bien des maires yoo xam ne ni tey ci ay transfert d'électeurs la doon sukkandiku pour gagner seen ay localités mais loolu dafay ànd dafay ànd ak mbuxum rawatina nag nguur waaw doo déglu li ma la wax am na ñoo xam ne nii mais ñun on a perdu les élections locales en 2014 mm-hmm. te ci nguur la nekk à Dakar am na wala amul. non boobu da kiiwul woon. non non da mooy li ma wax waaw ba tey rek miinu leen ko naan ay locale Ndakaaru tewu leen. ba ngeen hmm. bëgg ko éliminer. mais Ndakaaru. Hmm. on a gagné présidentielle Ndakaaru on a gagné au législatif Ndakaaru on a gagné au référendum te ñiy voté ñëpp ñi ñuy wax ni la c'est primo votants nee nañu mm. kon la les primo votants jóge ci 35 pour cent en 2017 mm. ba à peu près pour cent en 2019 mm. ci ay élection présidentielle on peut craindre ñun mënuñu craindre ñii tiit wala ñii am njàqare mooy ñi nga xam ne ñu sont en face de nous te wóoluwuñu seen bopp ñoo xam ne ñu ngi prédire seen mais bii moom am ngeen yaakaar gagné Dakar. mais bien sûr que oui. bu fekkee dina am. bu fekkee dina am waaw. bu fekkee feebar bi continué wul. ba fii ak xam xam nga nag mooy li ma wax tout à xam nga bi ma ne tout à hmm. bi ñu ngi koy attaqué. mais li ñu koy attaqué si sur des questions politiques. Hmm. mais loolu ñu koy attaqué. Hmm. nañ fexe li jógee fi ba pare. waaw c'est ça qui important. parce que tant que feebar baa ngi fi. di jël ay proportions yu extraordinaires. di grimper. mais wax dëgg yàlla. ndéem julli munut a am. góob na élection mën na am. Euh, local yi moom xam naa fi mu nekk nii mënut toogatu leen taxawatu leen moo tax sax ngeen créé seen affaire certificat euh, résidence yooyu <laughs> Ousmane Sonko Pastef déclaré na fan yi ñoom sax déclaré nañ ko ah muy benn coalition bu mag boo xam ni dañuy fas yéene jàmbaarloo ak yéen dóor leen dóor yi metti ci local yi tiitu leen wala boog loolu lan la leen def yéen. dama lay wax benn coalition bi gën a mag. bu fi musoon a am. Mm-hmm. l'opposition contre le régime de président Macky Sall ou bien Benno Bokk Yaakaar. Mm-hmm. mooy la coalition du oui ak non bi nga xam ne amoon na ci référendum bi. référendum bi. Benno Bokk Yaakaar gagné. Mm-hmm. te ànd boobu ñu àndoon ci la coalition du non. mënatuñu am ànd boobu parce que boobu amuloon intérêt personnel. est-ce que comprendre nga li ma la wax gis nga opposition bi il faut ñu leen di jàngat. gis nga coow lu yëpp. sur des questions d'intérêt national. duñ ci ànd seen intérêt crypto personnel moo leen ñor. xam nga ku ci nekk lu la intérêt ku ci nekk ku ci nekk. Mhm. du bàyyi sa morom jiite gëmante wuñu mhm. c'est ça la vérité. Mhm. man xam nga du ma wax si opposition parce que intéressé wuñ ma. mais acteur politique laa. damay suivre damay déglu mais yéen. xam nga yaa ngi may wax waxu Ousmane Sonko. di wax naan tiit ngeen wala tiitu leen. mais man dafa am lu ma gis si journaliste yi mu jaaxal ma. mais amul kenn. ku may gis Ousmane Sonko wootee conférence de presse ñu jàkkaarloog moom posé ko ay loolu lu ma jaaxal la. mais non day am. non non attends rek moo la des fois dafay la wax rek moo la attends Sonko. Mm. huit dernières déclarations yu mu def yëpp. Mm. moom kese mooy toog wax lu ko neex jóg dem te kenn du ko poser question. attends rek moo la. Mm-hmm. mais dama ne. Mm. au moins. war na mën a jàkkaarloog Sénégalais yi. question réponse des débats contradictoires entre les journalistes et lui-même muy poser ay questions ñu koy poser ay questions muy tontu. mais loolu. man daf ma jaaxal ci journalistes sénégalais yi. parce que mënuma gis un acteur politique koo xam ne toute ta politique ci sos ak ñàkk wax dëgg nga ko laal parce que loo wax tey suba tu poses de des des des des des nga teg ay actes yoo xam ne nii qui n'ont absolument rien à ak li nga wax démb. mais amul kenn kuy taxaw offrirul aucun journaliste des tribunes pour ñu mën a jàkkaarloo moom di ko poser ay questions contradictoires muy tontu. moi ça m'étonne. man personnellement. et puis bëgg naa ko invité fii ci Sénégal mais woon am. loolu doo ko am dama koy dama dama lay wax lool mais. parfois tamit mu def point de presse yoo xam ne gars dama ne mosoo gis acteur politique. Mm-hmm. boo xam ne fukki sorteem yu mujj yëpp. moom kese mooy toog wax lu ko neex jóg dem kenn du ko posé question. Mm-hmm. bu ñëpp xëyee ñu relaté ko ñëpp relaté ko. Mm-hmm. man loolu ça m'étonne ci journaliste yi. beneen affaire bi mooy. xam nga quand on acteur politique. booy wax ak say nit. wala booy wax ak say concitoyens il faut savoir les convaincre. man journaliste xam naa seen ay tey bu ay mbir amee ñu la ci war a poser question da ci war a tontu en toute objectivité. parce que tamit politique sincérité ci la bokk. politique ay naafeex ak ay sos ak ay fen lalu ko. man c'est ça mon problème avec le leader Ousmane Sonko. il pas affronter les journalistes les journalistes aussi n'osent pas les affronter dafa mel ni dafa am benn relation de méfiance bu am entre ñoom ñaar. man ça m'étonne. te loolu nag il faut ngeen jóg toogatul ak ay mbooloo day jóg taxaw moom daf ay déclaration Covid bi la déedéet du loolu parce que day wax ay wax yoo xam ne nii engagé wul ña toog non rassemblement lay bañ yéenay def ma i rassemblement moom mu bañ a def rassemblement taxaw def déclaration directe kilifa gi man acteur politique laa nag nit mën na koo nangu acteur politique laa ah. je sais que journaliste nga xam nga ko ah. il fait des déclaration yoo xam ne ña mu toogal d'accord ñu ci déclaration yooyu muy def san ne les engage loolu noo xamee mais man may acteur politique seen waxtaan mënuma fekkee seen waxtaan ah. mais xam naa ne loolu ci la bokk parce que dafay wax ay wax yoo xam ne ay wax yu rëy yoo xam ne nii engagé wul ñooñu hmm. les gens sont en de faire de la politique au Sénégal hmm. mais li fi am depuis que Ousmane Sonko a infiltré la la la la wala dugg ci euh, landerneau politique bi violence bi fi am mosu fi am nañ nañu waxante dëgg ah, donc dama bëgg nag yéen dama bëgg nag yéen mës na fi ah am mais lan ba ngeen bëggoon lal seen maire bu gàddu. mos na fi am kenn ki yor xeer dem taxaw bi. waaw waaw mais xam nga xam nga la moo musul am am. ma wax sama xalaat ñu toj sama kër. ma wax sama xalaat ñu agressé ma. nit am problème ak nit ñu jël nit ko denc ko parce que mun nañ ko rey. foofu lay waxee. il faut man li may wax xam naa ko bu baax dafa ma gën a jàpp ma. Mm. dama bëgg journaliste yi am courage bu fekkente ni nit ki saa yu bëggee wax wax. yéen bu ngeen ko bëggee laaj mu leen ko laaj. ça c'est un problème man ça me pose problème. loolu dëgg la loolu lu ñu lu ñu war a régler la parce que ñu bëri jooytu nañ ko am na ay journalistes yoo xam tamit jooytu nañ ko euh, loolu nag mënu ma wax ne. il faut le boycotter surtout déet man moo waxuma foofu la jógee de bu ma dugal de. ah j'ai dit qu'il faut le boycotter neewu ci. <laughs> soo fi toog nag ba ñu tàggu waxuñu ci ci xale yi ci ndaw ñi foofu laay tàggatoo ak mm-hmm. yow parce que question yi jeexoon na tey ban politique boo xamante ni moom la ñu war a teg pour jàppale ndaw ñi déjà làmb ji tëj nañ ko ndaw ñu bëri ñu ngi gàddu seen doole xool nañ leneen li ñuy defi actuellement beneen mooy am na ay ndaw yoo xam ne ñu ngi fi di chômer surtout Covid bi xawal a lompañal lu bëri loolu est-ce que yéen a ngi ciy waxtaan ak seen njiit pour ñu trouver gën a yokk man-man bi pour gën a jàppale ndaw ñi. mais xanaa gisoo le programme bi nga teg liggéeyal ëllëg. Mm-hmm. pour ndaw ñi. Mm-hmm. et puis il faut pas qu'on réduise la question de la jeunesse que si làmb. Mm-hmm. il faut pas ñu réduire la question de la jeunesse si ay quelques trucs. la jeunesse c'est tout un ensemble. mais par branche la formation. mais par branche la la forme c'est l'éducation c'est la formation. entre autres. la recherche d'emploi, les financements, entre autres. Mhm. Donc, je ne veux pas qu'on réduise la question de la jeunesse. Par secteur, là, par secteur, par secteur. Là. Parce secteur mais, yo dafa am bayre secteur de l'enseignement secteur de l'éducation, secteur la formation entre autres. Formation. Yoyu amna. Mhm. Lamb yi nak ben peut-être que ben portion là par mhm. rapport ou bien ben chaîne là, ben maillon là par rapport à la chaîne de gestion de la question de la jeunesse. Mais en tout cas, lima Sénégal mm. en place des des des des mécanismes qui permettent la jeunesse de sénégalaise gis seen bopp ci wàllu. seen mécanisme dafa bëri de. programme ak mécanisme. yëpp yëpp ngi dox bu ne bu ne ngeen amul benn bu fonctionné wul nga dama ay tur ay. ba tey ANP ay xaw ma yeneen waaw mais man yeneen sax xaw ma ko ah. programme boo teg. Mm. mun nañ ci wax. Mm. xam nga tey nee nañ 3FPT am na fi. mais 3FPT day fayal ay nit ay formation. Mm-hmm. est-ce que xam nga 3FPT changé nañu ba changé seen mécanisme maintenant cette année ou bien ñaari année yi. dafatuñu ay formation comme ay marketing ainsi de se sont focalisés sur les corps de métier. bois mé mécanique. xam nga ma la sud et ruge informatique instru mm. pour que nit ñi mën a am métier xam suñu problème mooy mm. au Sénégal la jeunesse mm. dañu bëgg liggéey te amuñu formation il faut que la question de la formation se règle d'abord c'est la raison pour laquelle lii mécanisme yi di bëri wala lii structure yi di bëri mais structure bu ne am na lu muy jëriñ ANPEJ bi nga tudd léegi nii mais dañuy defar ay projet gratuitement dañu lay recevoir waxtaan ak yow dafal la mais jafe-jafe yu ngande la ñu àndal il faut savoir man moom loolu lu ma leer la nag dëgg ci la bokk mën naa la limal ay tur ma ne woote ñu ne mhm. leen nii lay demee ak nii ak nii ak nii ay jafe-jafe te dañ lay imposer projet dama la wax dara au lieu nga indi sa projet mais dañ lay imposer projet loolu ma xam la xam nga dara am na hmm. structure de financement bi lu muy bëri bëri bëri waaw mënuñu financer ñëpp tamit waaw loolu c'est une mais ñu lay imposer projet nag imposer nga war a def lii nga a def lii nga war a def imposer projet ah man wax dëgg yàlla na man ku ma xam ba tey mais aussi xam nga man sànq maa ne koy wax gis nga xam nga ñun suñu journaliste yi du seen problème mhm. ils ne vont plus à l'investigation c'est-à-dire que dañuy dégg ma lay wax investigation la gars yi nañu mais ma lay wax investigation la de ki ma lay wax nii man ak moom ñoo bindandoo projet waaw ah, yow tam bind nga man ak maa ko doon jàppale mhm. maa ko doon jàppale mais il a elle a des difficultés elle laa la wax jigéen la mhm. elle a eu des difficultés ba dafa découragé bàyyi waaw loolu day am peut xam nga ne peut a mis en ñu ngi xool quelles sont les façons mode de financement yi naka lay mën a possible mm-hmm. quelles sont les possibilités mm-hmm. financement bi c'est à hauteur de combien de millions entre autres mm-hmm. quels sont les papiers qu'on doit mettre en place entre autres donc c'est toute une chaîne de choses yoo xam ne ni tey dañ ko war a mën a teg pour ku ne mën a bénéficier ci wàllu woowu donc loolu tam c'est important mais en tout cas am na ñu fi am ñoo xam ne moi j'ai vu bu tey ñu woo leen suba ñu woowaat leen dafa leen visite entre autres. Hmm. gis naa ko c'est des personnes que je connais. Ouais. mais entre autres am na loo man naa la naa la jox sama projet. incha allah <laughs> ñu ngi lay jaajëfal xam naa boobu dafa nekk loo xamante ni euh, lu ñëw la ci fin wu euh, entretien bi. parce que euh, dañ ko waroon a waxtaanee ah, dafa jékki-jékki rek ñëw sama xel. ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax Amadou Niang coordonnateur COJER Dakar di lay jaajëfal ci disponibilité bi. ak ci xel mu sell mi. merci beaucoup je vous remercie de m'avoir invité. ñuy jaajëfal ñëpp di jaajëfal Ablaye ci technique bi euh, coordination bi euh, Khalil mbokk yi jaa ngi jëf beneen yoon. jërëjëf. <laughs>